mun nga kuréexa sibee fat na tarku tuxrin bàyyi laab bàyyi sangu fiihimaa fiihimaa ngeen bindoo fiihaa fiihimaa maanaam si ñaari xutba yi maanaam aji xutba ji mën na bañ a amee njàpp du yàq waaye du yàq xutba bi waaye sib nañ ko wala amalin ak bàyyi jëf wa tarkul amali maanaam yow ma xaa bisu ajjuma bi bisu ajjuma daal du ma liggéey du ma liggéey ndax tey ajjuma la daa day daal di nekk bidaa mu mel ne sax ajjuma ji ñëw nga woor tànn rek benn bis ajjuma wala alxames wala bis boo xam ne bu ñëwee rek nga woor ko sib nañ ko wa bay on wa bay oka ab dinde wala wa bay on de wa bay oka ab din ak jaam jaay lu demee ne ki jaam bi suuqin ci marché waxtaha waxtu juma ah kooku lu mu bëgg a wax foofu saaba wa kuriha bayuka abdin musaafirin ah moom mooy jaay ca ngeen jaam bi lañuy jaay jaam bay jaay waa mi ajum warul muy nag wa tanafulu imaamin an naafilul ilimaan qablaha jële njëkk xutba bi bu mu daatan xutba sib nañ ko imaam ji ñëw di naafile ci jàkka ji te xutba bi ñëw aw jaalisin wala aji jekke indal azani fas nodd gi maanaam mu ngi lim toujours ci yu ñu sib muy naafile moom nga xam ne dafa toppoon ci ci jàkka ji nga xam ne dañ koy roy indal azan yi
mu toog ba ñuy daal nag la ba ñuy naddu
waaw élément bi élément
mu nekk waaw foofu lool waaw kañ foofu mën na faa def lu mu bëgg a def ndax kenn du ko gis naafil ak ajit toog ci jàkka ji indal azan yi fas nodd gi xam nga ni bu ñu tàmbalee di nodd kenn waratu la julli kenn waratu la julli naafil la day toog déglu nodd gi.
waa kii jaalis rek la wax. jaalis rek la wax.
maanaam ki fi nekk rek dafa toog rek nekk ci jàkka ji ba ñu nodd rek. dafa toogoon rek ci jàkka ji waaw.
waaw léegi bu fekkoon ne tey jii wàññi. xam nga loolu lañ koy kii ndax lu mel ne xadis bii. li yonent bi waxoon na sali al xatafaan yi.
waaw.
xam nga dafa am na ñoo xam ne foofu lañ sukkandiku ba ñoom bu ñu duggoon rek itam.
waaw.
fekk limaan ci foofu lañ barab itam. muy xut wala xut baax waaye muy ci kaw rek.
waaw ñu ne dañu daal di jël nii ñoom ci lañ sukkandiku.
waaw moom la léegi ndax fii jaalis bi moom xam nga ci yàq moom jaalis rek la waaye waaw moom léegi dàq koo xam ne dafa toog ci ci jàkka ji.
waaw waaw léegi nag dafa toog ci jàkka ji rek.
waaw
xam nga moom mënoon na naafile lu yàgg.
waaw waaye bàyyi naafilewul ba. ilimaan ji di no di not di kii di xutba wala ñuy not mu daal di soog a jóg nag di naafile xam kooku wóote naag ki nga xam ne sax dafay soog a agsi. waaw waaw kooku moom am na ñaari wax waaye kii moom ku ne xam na ne moom dafa am illa bu tax wax ji kay mooy kii nga xam ne daal di dëddoo ak si waaw ak ilimaan ji moom est-ce que tahiyyatul masjid yi sukkandiku ci xadis bële wala ñu mel noonu gi nga xadis boobu itam nag waaw xadis boobu nag dañ ko fa bàyyi te xam nga xadis yi xadis moom moom la fànn su jafe-jafe-jafe boo gis mu yàpp xadis yi nag ñàkk a xam xadis bi te xadis yi ci bari daf ci am yoo xam ne daanaka rek nangu nañ ne wér na waaye dégg nii day jafe dañuy wute kii ndax bari na ci wute yoo xam ne yëpp benn xadis bi bi ñu sukkandikoo benn la waaye lee tax kii na lee tax kii na lee tax wala xadis bi bee ko mujj wala bee ko mujj wala bee ko mujj am na faqi bu ñëwoon Basra fekk fa ñeent ñett ñett ñett ci ulamaaw yi mu laaj leen benn masala kenn bokkee sa morom wax ibnu abi layla ibnu Subrama limaam abu xanifa mu ne kii ndax dagan na fa accident ndax dagan na jaay ak charte kii ne ko njaay mi yàqu na charte bi yàqu na mu dem ci kii ne ko dagan na njaay ak charte ñu ànd mu ne ko njaay mi baax na charte bi yàqu na mu dem ci kii laaj ko ko mu ne ko charte bi baax na njaay mi yàqu na mu ne laa ilaha illallah ñett ci fuqahaa yi ñu wuute wax kenn ku ci ne xaddis nga ko nga ko nettali kenn ku ci ne ne ko li ma dëgg Imaam Abu Xanifa daf ne ko diw nee na ma Sayyidatuna Aïcha nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ko ishtari burayrata washtariti wala fa innal wala aliman ataqa amatul ci teg mu ñëw ci kii mu ne ko zayaat ibnu abi nee na diw ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam jënd na ci moom gëléem charte doom ya mu jaay mu ngi charte bu ngi ki nga xam ne moom dafa ne ñaar yëpp wér na kii nee na charte bee yàqu kii nga xam ne moom nee na charte bi wér na waaye njaay mi yàqu na maanaam charte bi waa ji moom li mu def dagan na mën naa moom kii waaye nag njaay mi du warkee bu ko neexee mu mu mu mu xaaj maanaam mu bañ a nag mu wér ko moom itam xaddis la mu tax xaddis yi day waar da def ci am yoo xam dañoo yëkkateente bii dafa mujj bii waaw moom la waaw jënd bi ne waaw na bi nekk naa si bi ne si man suuf waaw wala xaddis bi ñi mu jaar ci ñoom am ci koo xam ne biir xew-xew boobu xew judduwul mel na que tey imaamu Shafii li mu doon wax aaju nga xam ne dafa newoon kii Taalib jërëjëf Taalib kii la doomu Ummu Ayman doomu Ummu Ayman Ayman ci bopp doomu Ummu Ayman xista bi mu nettali nee na Taayif la woon mu ne ko nag boobu mujaahid moo nettali moo nettali masala bi mu ne ko nag boobu ma mujaahid mënul jëlee ci Ayman parce que Ayman yow ma xam ne lañ ko rey te booba mujahid teg na ci juróom ñetteel soog a judd. après borom noddu ki ma laaj ak tuuti noddu ku saar gi la wax wala noddu bi imaam bi toog déedéet bu baax bu mujj bi waaw.
mujj bi la wax waaw noonu bi daal moom woote la rek moom moom moom daanaka kenn néew wala kiiwul dara. mooy waja aw aw jaalisun wala naafiloog aji toog joo xam dafa day toogoon rek indal la saa ni mu daal di jóg nag di nodd di naafila ci nodd gi te newoon fi booba léegi dégg nga. waxaduru shabatin sib nañu itam teewu waxambaane bu jigéen koo xam ne kenn ragalul fitna ci wàllam waaye bu ñu ko ragalee moom day daal di xaram
ci julli ko ajjuma la waaye bu dee julli farata moom dañoo xam ne moom may nekk waaw waaw ci kaw nag bu doon waxoon ne gi nekk moom soo ab taaram dafa jéggi dara daal waaw maanaam waaw taar bu kii rek waaw boo xam ne am nañ ci fitna waaw tey ragal benn ci taaram wala ci meloom wala Tey ragal fitna la.
wala xëy am moom lañ ko mën a gën di waaw jàpp waaw dégg nga wa safaroon ak tukki baadal fajri teel a ajjuma biir septembre pare ngay tukki nga xam ne ajjuma jiw ar te boo demee ajjuma du la war wala doo ko mën a jullee fan sib nañ ko rek waaye boo amee soxla soo xam ne lu ñu sib mooy lan
si li may waxoon nii maanaam bàyyi gi bàyyi gi dañ moo gën gën a def gi la.
xam ne boo ko bàyyee am nga ci tuyaaba boo ko defee itam nag am nga ci tuyaaba am nga ci d'accord bakkaar noonu la d'accord niñ ko waxee ci waa usul yooyu lañ ko tuddee
boo ko defee mooy lu ñu tere te dëgguwuñ ci tere te dëgguwuñ ci
say da kenn dégluwu ci Hmm?
man kenn dégluwu ci ay duma kenn dégluwu ci ay waaw xalaat waaw boo ko bàyyee daal ngir yàlla am ci tuyaab kon jaamu yàlla la bàyyi gi mooy jaamu yàlla def gi nag dara nekku ci lu mel ne léegi su fekkoon ki nga xam ne kii comme ni nga xam ne oto yi da jaxasoo nañu ba en bi ci ëpp soo amul sa oto bopp da ngay dugg dem dugg ci oto rek waaw
am sa oto bopp moom loolu xaw nga ko wóor ne xam nga ko waaw léegi nga bëgg a dugg oto rek oto rek moom huit heures moyen lay egsi léegi kon moom àjjuma su fekkee oto rek nga bëgg a dugg te mënta ñëw avant fajar boo xëy na daan daan la ko yoloma la xam nga ci biir rek la te itam bu daruur yu amee moom ab daruuraat tubeexul maxduuraat waaw même lu kii sax waxuma laa yoon si lii xam nga jamono yooyu itam tukki dafay aju lépp kon mu ngi aju ci maanaam coobareel kii tukki bu dee gëléem lay waat bu dee fas bu dee day dox waxtu ko neexee mën na jóg te itam mën nekk soxla yu bari yoo xam ne booba gannaaw dem bi jafe na mën nga dem tey mën nga dem ëllëg mën nga dem gannaaw ëllëg fekkente nag léegi nag ma ne fonctionnaire buy xëyee ko gont wala waxtu sàngam war na ko fekk buy tukki ajuwul ci bëgg-bëggam permis am benn flair waaw waaw waaw moom man naa àjjuma ji sax man nga nga naan dix heures sax ba mun la bañ a dem te ki ci bee rek lañ ci wax waxuñu xaraam waaw te liñ tere sa wàll waaw waaw kañ la sawal dégg nga wajaasa dagat na nag tukki xablahu ca la jiitu loolu la wa xaruma araam na bi sawali ah booba waxtu wi jot na te kalaamin na ko doon wax fi xutbatayhi waaw waaw mu ngi xutba ngay mbel meli wax dégg nga bi xiyaami yi ci jógam bi xiyaami yi maanaam ci jógam moom xatib xatib bi xatib waaye bu toogee nga xam ne moom mu ngi ittewoo di ñaan mu ngi soxlawoo di ñaan nga borox lu wax tuuti yonent bi balay jógaat waaye waxtu waxtu bu taxawee nga xam ne moom mu ngi xutba da nga war a déglu te ko déglu farata la wa baynahuma am ngoog walaw li xayri saamiin doonte it ku dul dégg xutba bi la itam ngay wax ak moom sore na ba du déggul xutba bi ba dégg xutba bi ilimaan di xutba ndax sore na xam naa booba rajo yi amul mel na tey léegi bu fekkoon ne jàkk ji gën na fi rëy nekk ci kii bële xatti bi boo xam ca kaw mën nañ ko bañ a dégg mën na ko bañ a dégg waaye bu ko dégg bu ko déggul yëpp ci yem rek illa an yalquwa ndare boo neenal na alal mustaari laxu mooy wax joo xam ne waxi neen la maanaam nekkul lu aajoo loo mun bañ a wax waaye wax ji mënoon nga ko bañ a wax laxu la sa mbub saay sa mbub mi rafet na ñu ne lan la wala ku la ñaan suñu mën wala yu mel noonu nga xam ne yow wax dëgg yàlla dégg nga loolu sax am na mu tane am na wax yoo xam ne moom daanaka du waxi dara tey de man dana sonn fi mu ne wala yooyu sama bopp bi day métti wala loo xam ne nii mën ko wax ci ñetti baat nga wax ko ci juróom ñetti baat ñu tam ba tey loxo la alal muxtaari ca la ñu tànn kii nag sax moom ci xatib bi la ko delloo bu fekkee ne kooku dana doy waa moom xaar dina am ni am xobbati kamat fi mu lay ndax loolu daañu ko def léegi loolu yaakaar mu ne xatib bi xutaba wu nag bu njëkk daawoon nañu ñaanal xalifa bi waaye kooku itam waaw makruh la te ñaanal gi sax moo tane tagg gi kon kon nag bi law la rawatina nag kon ki nga xam ne mooy déglu xutba bi waaye loolu doy na waa wax sax laa yajus matxuhu ka matxi man laa yajus matxuhu wa sab man laa yajus sabbuhu waaw ka ki imam ki imam imam imam ali ak sidna Muawiya ibn Abi Sufyaan daawoon nañu rëbbante alal manaabir yi daa nañu rëbb sidna Muawiya ibn Abi Sufyaan daan rëbb sidna Ali ci kaw minbar bi ba ñu def ko sunna xam nga sidna Ali moo ko fi njëkk a jógee mu di ko def sunna ba sidna Aïcha moo ci yónnee yéen yéen a ngi rëbb yàlla ak yonent bi ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla bëgg na Ali yonent bi moom bëgg na Ali Seydina Omar ibn Abdul Aziz moo ko changé aay ji suuf xasir la dina laay moom Abdul Wasan yi daal ñaan ñi ne ni mu ko kilee ni mu ko wattee ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. المختار بوب تي لا ني تان جلتي لا خامي جلتي ووتي با su nga xam ne même benn benn faqir dana wax ñaari wax ci benn masala wax lii delloo génn si imam Malik jàngale na ñeent fukki at Muwatta te naka jekk ak mooy def ci daan am yi muy dindi yu dem ba doyatu ko ci xaddi si mu dindi ci sànni xam ne Muwatta ñaari nisxa rek ci imposé te nisxa yu bare bare amoon lu ñaar ci nisxa ñaar ñi Mouhamadou bin Hassan. waaw mu ni waka salaamin naka noonu sëlma nuyoo waxtu wu ñuy xot ba moom itam tere nañ ko waraddihi ka salaamin waraddihi de ak delloo maanaam fay fay nuyoo ji nuyoo bi daal delloo ko wanax yu laaxin naka noonu lañ tere itam nga tere kii foofu wala muy wax dangaa wax ne pat rek ne teg bu la dee wax nga bañ koo wuy bañ koo faale waxas bi ak jëmbraayalam ah kon léegi fii maanaam mooy li nga xam ne léegi tey delloo delloo maanaam fay nuyoo farata la moom waaye fii moom li tax moom mu araam parce que jëmmi nuyoo yow dafa araam dafa am delloo bi ak ak mu mu mu wokk mu wokk gannaaw dañ ko ko tere woo ko woon a def waaw bu dëgërlee ba def ko ki nga xam ne mooy moo nekk ci loxo boobu nga di ko tere wala nga xam kii jëmbraay ñu ngi ko tuddee xeer ba ci tuuti di ko sànni pour mu noppi noonu aw aw ishaaratin wala junj la koo ñeel ko yooyu yëpp mu nga war a dal fa ibtidaay salaatin ak tàmbali julli bi xuruji yi maanaam julli naat la moo tax ñuy wax maanaam ci génn ilimaan ngir jëm si si xutbu bi yow yaa ngi si jàkka ji daal di tàmbali bu la fekkoon dañ cee génn bu la fekk ilimaan ji dugg si dafa fekkoon nga nekk ci julli nga fas rakka adda wa indi daaxilin waaw doonte ñee maanaam aji dugg si la woon itam ci jàkka ji fekk ilimaan di dugg waaw wala yaqta'u waaye du dog in daxalat dem tàbbina mooy liñ waxoon aji naa fi léegi bu fekkee ne xatte bi dugg na di xutba fekk ku ci julli gi du du dog julli gi fekkee ne fas na rakka day ñaareel
naka dafa fasul ko yéen waaw foo fas rafiree fat na bayul am njaay ci diggante boobu bu mu noddee booy jaare fi naka noonu fas fasu yooloo itam dégg nga mooy da nga luyee kër wala oto ñu waxante ko waxtu noddu juma dañ koy firi dañ koy dañ koy firi di wéy wa tawliyatun ak méngale tawliyatun mooy da ngaa waxaale kii boo war ko ko jaay kii ñëw soxla ko nga ne kon nga fay ko nangam laa waxante moom moom laa ko war tey bu ñu ko dee jamono noddu juma bu déggee dañ koy firi dañuy delloo alal ji borom wa sharikatu naka noonu itam société bokk fas fas ñooy société wa iqaalatun ak xàccee aw iqaala nag moom ni ko wala fi waxe mooy ñàkk kerse gi ki jëndoon di delloo moo ko féetewoo kii nag iqaala moom xàq la rek yoo xam ne yoon may na la ko parce que bi ngeen façon nga gis ne am nga maslaxa ci mu bañ a wéy wala moom mu gis ko mu ñaan la ko sa waay jéggal ma iqaala jéggal gi nga koy jéggal mooy iqaala léegi jaayoon nga ma lii nga génn gis ne soxla nga ko lool nga dellu si ne ko sa waay man de jaay naa ko waaye rëcc naa ko ndax nangam ak nangam ak nangam ma ne la bon kon nag bàyyi rek nañ ko bàyyi iqaala fal naa la iqaala wasuf atul ak ndab xam ngeen ndab de ndab dama bokk ma ne cër daal cër cër cër cër cër nga wax wala cër cër cër wàll wàll ah cër waaw waaw dama bokkoon taax ñu ñaar noo ko bokk léegi nga dem jaay sa wàll keneen nga gis ne kooku moom xëy na kee nga gënoon a jubal wala moom taax mi yow dong moo gën ci yow ndax li ngay def maanaam wala ñi nga amee duñ xaj ci genn wàll gi xat na wala kee buñ ko ko jaayee nangam la ciy def lu jaay du loo xam du bëri keeg yow nga dem yoon daf la may maanaam xàq la sa xàq la nga dem delloo ko la mu ko jaayee woon
am loo xam naa day maanaam day ñaar ñoo xam daal ñoo bokk kii li ñoo bokk aw fas waaw waaw ñu war koo jaay waaw
léegi kii dafa bëgg a jaay wàll xëy na yow bu la ko yëgalee nga jënd ko.
waaw te noo ci bokk àq te noo ci baax noo ko bokk waaw. ci bokk ci àq. nga bëgg koo jaay keneen. te moom bu ko boo ko jaayee moom mu moom ko lépp moo gën ci moom. nga di ko jaay keneen ni mu ko bokkaalee woon moom nga xam ne gêné na kenn ku nekk yow gêné na ba nga di ko jaayaat. moom am na xàq ci dem jox kooku li mu li mu la ja jaayee woon nag moom.
ñu ne daal maanaam koo xam ne kii tey dafa amoon dafa faatoo maar dem si bàyyi njaboot. maanaam ab bâtiment maanaam kii am ci mu nekk kii am ci mu nekk waaw kii moom néegam boobu mu bañ ko jaay doon bàyyam ji xanaa jaay ko jaay ko waaw waaw kooku am na xàq ci dem delloo kooku njëg ga yoon may na ko ko mu nekkal ko kenn mu sañu kaa teg dara ah kenn ki ki ñu ko jaay ah sañul ni léegi man comme man lañ ko jaay dara jaay nañ ma ko ñaar junni man bu ñeenti junni daal laa ko jaay ko soo bëggee ma jaay ko soo bëggee ma bay ah soo ko def dootu shifaat kooku moom dafa lay jaayaat la waaye bu dee shifaat moom
jamono ji loolu waaw jamono ji moom noonu la ñuy def moom noonu la ñuy def loolu parce que fi nga xaar maa baax wa ci ko mënu gis nga sama nii rek waaw léegi moom wóor na ne moom bu bu kaa bi amoon moom moom kooku daf lay exploité ba nga dee ndax xam nga ne soxla nga wér wér wér la dégg nga ndab nga dem dabi ko dab waaw ndab mooy nga dabi waaw jéggaleen ma ñetti minute ma ma tooy nit ki dafa dugg si maanaam ñaareel si maanaam dimbali si di am problème xam nga suufu mooy ñaar ba tey waaw suufu ak suufu ak wett nit nga wala wett ñaari dara chef itam bu fekkee ne ne waa ji dafa am cër bi am cër ci lenn mu dabi beneen cër beneen cër bi nga ñaari cër yëpp moom léegi moo ko moom. ba tey chaque la mooy sufaat sufaat bi waaw di wax. beneen chaque ba chaque bi ñu ngi لا يقتل دخلوا في بين إياكم في لتسعين ويقتل شبه قلبي أذاني ثاني منم بأذان بأذان ثالث للشروط وهو الذي أخذ بالدروس الخطيب mooy yooyu ñu waxoon yëpp noddu ñaareel bi xam nga noddu bu njëkk bi Seydina Ousmane moo ko tàmbali woon tax ñu di ko def moom borom risaalum banu umeyata la wax booba la benn benn xalifa bi nekk bu nekk biir biir banu umeyata bu ñaareel gi nag moom mooy nodd bi tax ñuy wax bu ñu waxee nodd rek boobu tax ñuy wax ñaareel bi fa in faata bu fekkee ne ni muy faat lépp xam nga mu ngi woon ci li ñuy firi ci jamono nodd nodd bi woon di azan di azan ñu fari fa in faata su fekkee ne li ngay dabi wala li ngay def sharika wala li ngay def tawliya wala ijaara faat na ni ki tey waa ji jël na affaire bi ba soppi ko wala mu def ca dara loo xam ne faat na bu buñ ko firee itam ki ko ki ko jëndoon moom day lot buñ ko delloo ki fekkee yàq na ko wala daggat wala am na lu mu ci def daal kon fal xiimatu xiima da lay joxe nga dénk ko dénk nga def ñu waji daggat ko waaw nga dikk ñu ne nag yéen kat jamono noddu juma ngeen ko jaayante léegi dañuy firi njaay mi léegi ñu ne delloo ko li mu la joxoon delloo ko dénkam mu ñëw fekk mu dagg na ah xaj kat daggat na dénk yi nag te man soxlaatu na ko nii xëy may kii ba woon dénk ba woon waaw xëy may dénk ba woon la ko war a jox mu delloo ko moom it njëg ga mu ko jëndal xëy ma ak njëg du ñu benn
njëkk njëkk moom est-ce que waxal la njëg dañ koy waxaale mën na bari mën na néew xëy ma nag xëy ma est-ce que mën na yokk wala wàññi waaw mën na yokk mën na wàññi ko ci jamono ji soxla gi ñu ko gën a soxla ak gi ñu ko gi ñu ko gën soxlawul.
mooy la loi de l'offre et de la demande quoi. du du ñëw la loi de l'offre et de la demande.
waaw léegi ndax ci jàng tax tax ci nekk ci moom léegi bu ko joxee xayma ji.
su fekkee njëg gi njëg gi mën naa ko teewul waaw kon muy musibaam ndaxte chari yoonu yoonu yàlla la. bu mel ne rek yow mi amoon say néeg ngelaw li ñëw naawal sànni ko fële toj ko wala indi safara taal ko. nga xam ne rek wala nga bay sa tool njéeréer li ñëw lekk ko. doo doo jàmbat kenn.
waaw léegi moom bu bu fekkoon ne léegi dafa ñëw moom comme suñu wax rek mu jënd aw dénk dénk ñu jënd ko léegi tey deux mille deux mille cinq cent léegi waaw ñu ne léegi kat waxtu yi ñu ko waxtu bi ñu yëloon loolu dafa aram dañu ko war a firi waaw ñu ne waa ji dagg na ko ba mën cee liggéey la muy liggéey waaw.
xayma boobu léegi ndax ci seen diggante ñoom ñaar lañ koy seet wala dafa am ne nañ ko war kenn ku ñu war a sukkandiku yow ñett leen pour ñu seet ko wala seen diggante ñoom ñaar rek mën na nañ ko wax.
déedéet ndax seen diggante ñoom ñaar mën nañoo bañ a d'accord ñeneen la ñuy seet ñoo xam ne dañuy liggéey dénk waaw xam mbiri dénk ñu mat seede ñooy seet ba ne lii kat nangam mooy war a doon xayma bu ko defee ñu waralal ko kii borom dénk bi loolu lañ lay jox ndax moom mën na laaj lépp loola bu naa fekkee wala mu ñàkk xam dara itam xamul xayma yi dénk moom soxlawu ko woon sax ba di ko jaay mu daal di wax lu mu neex waaye bu fekkee ne dañuy seet xayma ji ñi nga xam ne ñooy liggéey ci mbir dénk mooy menuisier yi kenn si ñoo amu ca intérêt ci njaay mi wala mu ñàkk yi ñu laaj ko rek mu waxal yàlla liy intérêt li li xayma bi moom ak meneen moroom mu demee ñu ñu jox ko xam nga lépp lu jëm ci alal ñaari seede lañ ci santaane bu amul lu dul benn ñu boole ci ngiñ waaw bu benn seede ngiñ ci ci alal la dagal alal bu dee ci deret ñaari seede du mën a ñàkk benn ngiñ du sotti seede bu fekkente ne itam ci lu dul alal la du deret mel na ka tey liir bi war na doon wala war doon est-ce que judduwaale na bakkan wala judduwaale bakkan maanaam mooy tàkku na wala tàkkuwul foofu ay jigéen daañu nangu seen seede foofu ñu doon réew la foofu jigéen ñi daañu nangu seedeem lu foo xam ne ñaari jigéen ñi ñooy be- seede benn góor
léegi bu fekkoon ne léegi ñoom seet nañ xayma bi ñoom ñu d'accord ne léegi deux mille cinq cent yi ñu ko jëndoon waaw ñu xaymaat ko ci deux mille cinq cent waaw léegi nu muy def day yëkk deux mille cinq deux mille cinq cent la koy jox waaye waaye dañ yëkk yi waaw.
deux mille cinq jox ko waaw waaye itam ñu xam ne rek xayma la ko jox waaye di jox delloo ko njëkk la waaw ndax loolu tam dañ ciy sàkk mu daal di am ci saa si wala saa yu yu jàppale
ah moom kay def bu ah bu jàpp bu jàpp ne rek koy daal di jox sa bu jàpp ni woon dañ koy jox délai léegi dañ koy jox délai li ñuy wax xam nañ ne nañ ci toog xam nga ku nekk yaa ngi sa moom deux deux mille cinq cent si ni ma ko déggee waaw mel na ku nekk yaroo nga sa moom deux mille cinq cent waaw foofu lenn lañ ci wattandiku xam nga bi ñu teree salafan jarra man fa atam lebal indil njëriñ kii leble ba tax bu ma la jaayee léegi saaku ceeb mu jëm la quinze ci weer bi ma dellu saat bëgg ko jëndaat ci yow benn ma jënd ko ci teew wala ma jënd ko ci dig boo xam ne àggul la 15 wala dig bu passé la 15 léegi su ma ko bëggee jënd ci dig boo xam ne àggul ci la 15 wala ma koy jënd eh, ci tey bu fekkee ne ëpp na njëg bu njëkk ga du dagan bu ko yéesee du dagan du tax dañu naan dañ koo làqoo ma bu fekkee ne dama koy jënd léegi dama la ko jaay pour le 15 ci euh, 15 000 francs ma ñëw bëgg koo jënd léegi ci dix mille francs jëndaat ko ci yow dañu naan saaku ceeb bi dañ ko doxalee seen diggante ngir bëgg koo lebal dix mille francs bu la quinze mu fay ko la quinze mu fay ko quinze mille francs kon euh, intérêt boobu ñu doon bañ moo ci dugg bu fekkente ne nag fuqaaw yi seet nañu ne yow kat ngir ràkkati ko ndax ba nga koy jaay wala mooy wax lebal marchandise waaye ci kii li ñu xam mooy jaay mu jëm dig wala jaay mu teew léegi ba nga koy jaay mën na fekk dafa jëm dig wala dafa teew fekkente ne dafa teew dafa nga xam ne fay na la ba noppi ñu yëg nañ ne noddu waxtu noddu ginnaaw la la ko jaay léegi yow dagg nga dénk yi ñu seet ko ne xëy na ji deux mille cinq cent yow yaa koy jox deux mille cinq cent bu ko defee dénk yaa ngi ci yow deux mille cinq cent yaa ngi ci moom li gën a tëb seet Seetlu na borom dénk bu bu bu jënd dénk jox na ko deux mille cinq cent ba pare waaw daal di jël dénk mën na nekk jox na ko deux mille cinq cent mën na nekk joxu ko ko ndax jaay moom bu ñu ko waxee rek jaay bu fekkee ne ma laa jaay dara euh, gannaaw la nga may fay duñ wax ne dama la ko lebal ci ci chéré ak duñ wax dañ naan ba tey jaay la rek maanaam jaay mu jëm digg bu fekkee nag jaay rek mu jëm digg nit la fa ko jaay teew mu fay ko léegi deux mille cinq cent yóbbu dénkam daggat dénk yi ñu firi njaay bi xam nga yow dañ laa waroon delloo sa dénk delloo ko xaalisam léegi xaalis bi ak li nga ko jëndee woon ñooyam xam nga léegi moom am na dénk war na la jox deux mille cinq cent joxoon na la deux mille cinq cent waaw loolu lay def waaw léegi yow joxoon na la deux mille cinq cent bi moom dagg na dénk dafa la waroon a delloo dénk mu jox la mu war laa jox léegi tey lu mu la war a jox deux mille cinq mille francs la fekk na da ko delloo dénk da ko war a joxaat deux mille cinq cent waaye dagg na dénk ba pare bu ñu ko delloowaat comme léegi waaw mu jox ko 2500 deux mille cinq cent sax la ko war a jox ndax kii joxoon na ko ba noppi bu fekkee jaay mu teew la woon waaw bu fekkee jaay bi teewloon joxoon na ko deux mille cinq cent ba pare waaw léegi ñu dikk jaay bi fas waaw ñu ñëw dinañ koy fas foofu ñu koy fas foofu ndax su ko joxaatee deux mille cinq cent kon day mel ne jox na ko cinq mille ah dañ ko dégg boo ko seetlu bu génne dina ko seetlu
waaw ñu ngi ko déggee waaw ñu ngi ko déggee ñu ngi waaw yow yaa ngi jaay kii dégg moom moo la jox benn ci waaw moom mu jël sa dégg daggat na ko bu ko dëggat loolu daf lay jox sa dégg nga jox ko deux mille cinq moom kon sa deux mille cinq cent ngi ci yow sa bant ngi ci moom ñu seet ne xayma ji deux mille cinq cent la yow nga waroon koo delloo deux mille cinq cent mu war laa delloo wax di moom it deux mille cinq waaw nga ne nag ndax kon xanaa mën nañu comme kenn ku nekk am na def morom deux mille cinq cent mooy al muqaasatu lànkoo loolu la wax waaw mu nga loolu mën na ne loolu la bëgg nag lànkoo dem na noonu waaye loolu moom fokk rek dañu war a tudd ne léegi.
waaw faw rek ñu atte ko noonu ba mu kii waaw waaw léegi nag ngeen seet ni ngeen def mu wóor na rek léegi njaay mi fe fe fecc nañ ko te ndax bu fekkente ne léegi da ngeen ràkk ci ko noonu ndax du du mel ne kon njaay mi dañu wéel njaay mi day mel ne njaay mi dañu wéel faw do jàqlante gi am ndaxte su dul noonu rek day mel ne njaay mi yéen kat da ngeen a tappale rek ba bañ seen njaay mi daal ñu firi ko loolu loolu mooy importance laaj bi. ndax xam nga bëgg na nekk ak bayam ila ajalin la.
waaw kañ waaw moom amul benn liggéey.
amul liggéey waaye nag teew nañ waaw teew gi nag moom lii xam nga liñ ci laaj.
kañ dafa la wax na dëgg waaw waaw tey nan lañ ko mën a liggéey.
ndax bu fekkonte ne yow léegi mën na bañ nañu njaay mi njaay mi fii ko mën naa ne man dégg nga fekk jaay naa la ko trois mille wala wala mille cinq cent ma ne deux mille cinq cent la ko jaayee bu ko defee pour njaay mi day wéy rek wante ñu ngeen si bu ngeen demee si sànni ngeen gis ne fuqaaw yi ñooy yem yëpp fu nit jaar rek mënuloo lijjanti dara lu lu fekk na lijjanti ko bu yàgg ak ñoo ñor ñoom ànd na ñoom dara de
laaj yi day baax na baax na si trop fu mu toll ñetteelu ñetteelu bind bi tàmbali ñetteelu bind am ñetteelu bind bi aw aw amru wa ijabatu ñetteelu bind bi mu dala ci kaw te sama réseau.
ah non beneen beneen xat bi waaw kay xiinal xob bi waaw fa in faata ndem faat na al fal xiimatu xiima ja waaye xiima ja dañ koy xiimaa ci nan xanaa xiinal xob bi waxtu mu ko ngëbee waxtu mu jotee dénk bi rek dañu seet la doonoon xiima ja ci waxtu woowu ndax buñ ci tegee ñetti fan sax ñu soog a yëg ne kii mën na yokk mën na wàññi waaye waaye kon duñ seet li xiima ji léegi dañuy seet xiima ja woon ca waxtu mu koy nëb ndax ci waaju dëgg ko dal bay waaw même bu lakkee même bu fi lakkee gannaaw gi xam nga du duñ seet xayma ji bi mu lakkee bi mu lakkee xayma ji amatul solo te dañuy fas jëfandikoo seen liggéey.
waaw kañ kon moom la lakkal waaw lakkee moom la lakkal pal bayee naka la noonu la ñuy firee am njaay ak fasid mu di aji yàqu ni ñuy firee njaay mu yàqu rek ñoo bokk atte mu ne nag waaye kat laa ni kaaxun du loolu ñoom bind de du caa génn maanaam di firnde ak sëy ci nodd googu bu bu fekkee ne seet nañu bi ñu koy maye kat ñu ngi nodd duñ ko firi waxi bët na ak ko may dégg ngeen ko de kii bi kat bi ñu ko koy may ñu ngi nodd di may ñu ngi dara wa sadaqatun yàlla dafa sarxe alalam ñu ne ah bi ñu koy sarxe nag ñu ngi nodd di may te pas-pas la ñu tere ñu ne jaay génn la ñu wax buñ ko noon de buñ ko noon ko wàcc moom day daal di ah dégg nga kii bi ah waaw dana sonn dañ ne iza nudiya li salaati min yawmi jumuati fas'aw ila zikrillahi wa dharul bay'a kon nag bay'u rek ci dugg ah waaw waaw ah bay rek ci dugg waaw te amru boobu yu fiir lu wujub.
ah te amru boobu yu fiir lu wujub.
waaw jub jub alquran moom bu mu kilee rek jub d'accord mu ni wa kitaabatu waaw waaw waaw am na solo waaw waaye lii dara dafa am téere yu ko fi ba xam nga fii ne fii ne ci yax bi dem bi mu ne wax sadaqatun moom foofu leen waaye ci sara bi na indi na ko kitaabatun de ak waxool on yenn yenn di ah dañ koo tëb waaw mën nañ koo ñoo nañ koo jàng kon seet leen ko ci sara bi ñu jàng ko wa kitaabatun ak njotoo dafa ne kii daal da nga may jox nangam moom sa jaam la woon mu jox la nangam te moom bokkul mu jiital dégg nga duñ ko dindi ak xol waxul un ak summi koo xam ngeen ko de talaaxum di wax dégg mun nag wa usru parkiha ngantal bàyyeem maanaam bàyyi ajjuma bañ a julli ji wal jamaate ak bàyyi mbooloo shiddatu waxalin taruk ngiro xam ngeen ngiro de wa matarin ak taw wa disaamin taruk disaam nga xam ne kon bu fekkee ne xam ngeen disaam de bu fekkente ne tuuti la amul solo noonu du xeeñ du lore borom dana jumaa ji dana ko wax wa maradin ak feebar boo xam ne pour daal jóge fii dem ba ci jumaa ji taxaw julli ci mbooloo mi dana metti lool ci moom moo xam day war wala day dox wa tamridun ak feebar maanaam faj ko feebar daal ñu nga léegi dafa am ndeyam wala baayam wala benn koo xam ne du ndeyam du baayam du bokkam sax waaye amul kenn ku ko taxawu xalaat ni daal buñ ko bàyyee moom rek noonu dana garaaw wala mu dee médecin lu nag médecin waaw bu bu àggee ci kaa boobu waaw maanaam léegi xam nga jamono yi ñu toll moom am na am na ay changement moo tax si nga alyawma akmaltu lakum diinakum mën nañu lépp luy xëy ba ba saa taxaw dugg na ci loolu ak tem ñëw na ndax charte yëpp a ñëw ak règle yëpp ba lu bees itam loo xam ne mosul woon a amit buñ delloo ci buñ comprendre maanaam esprit charia rek dañ ko daal di mën a atte li ciy des rek mooy ixtilaaful ulama yi ixtilaaful ulama yi moom ba léegi mu ngi law mu ni wa israafu qaribin ak sappu deeg aji jege mbokkam mu ko jege daal feebar na ba maara de te aji léegi mu ngi mu ngi fii dugg a jege dégg nga mu toog bañ a dem jumaa aji taxaw ko wa nax yi wala lu mel ni moom itam ki xaritam wala jaamam itam bu tolloo foofu dagana la na ko mu bañ a dem julli ci jumaa wa xawfun ak ragal ala maalin ci àll yi waa ji taxaw fii daal bu may dem man fekk lay lay yoxal ni waaw suñu wala dañ koy tëj de kii daal buy dem dafa nëbbu dafa réeroon rek ndax daal lekk na kees lekk na kees daal ñu ngi koy wut booba léegi ñu ne bu ñu liggéey rek jàpp ko yoon may na ko mu bañ a julli ji aw dar bin
maanaam man la xaw daal maanaam tey jii moom def na loo xam ne lii moo tooñ waaw moo tooñ ci yoon yoon islam léegi at léegi moom moo tooñ xam nga loolu wër na léegi mu war koo kii léegi nag moom dóor yi rek dóor yeeg tëj gi rek moom mën na daw moom sañ naa daw kay sañ na nëbbu bu fekkee nag dañ koy xëy na koo xam ne kii du aji maandu la ki ki nga xam ne moom moo koy dóor wala moo koy tëj kon le dana dagal waaye bu fekkee nag moom moo dëng dëgg nag moom yoon may ko sax moom mu daw wala mu nëbb maanaam moom tey def na loo xam ne mu ak dëng la waaw dañ ko war a wër parce que yàlla dafa léegi kay ñu ngi koy wër
dan ko lay ajjuma léegi moom gannaaw bi daal ñu ne ko mel nañ la nga nee la ko lay dëgg yaa ci koo nga xam ne dafa dëgg moom li ñu yëpp day fekk ne dana di am ay waali ay gouverneur yoo xam ne imam Malik li ñu ko doon dóore ba mënatul yëkkati loxo bi yoon ci dëgg talaaqul mukrah yi laay jus rek Souleymane ibnu Abdul Souleymane ibnu Daawuda sa tur Souleymane ibnu Daawuda la tudd dégg nga gaañi dañu daan sànq sa ñu ngi la Souleymane déet waaw bokkul ak bokkul waaye bokkul ak kii nag gouverneur la woon dégg nga mu daal dem ne Rachid Malick daal buñ ko dégloo xam nga li mu bëgg a wax xam nga ne yow bi ñuy def ak yow mu bàyyi ah jaay si nga yëkkati ku bañ ñu rey la force googu ñu leen force rek ñuy def mu bàyyi ak gannaaw nee na talaaqul mukrahi laa yajuuzu maanaam ku ñu fase ku ñu forcé fase loola sa jabar boo ko fase it fase mi sottiwul doxul kon daanaka seen mu bàyyi bi dafa leen bëgg a wax ne leen seen mu bàyyi bi jàpp leen sañ ngeen a def tamarud sañ ngeen a wut beneen euh, kii xalifa sañ ngeen a xeex sañ ngeen a kii dal di yónnee ay agent secret bu Malick léegi bu daan jàngale moo tax kër bi dana fees léeg-léeg ñi déglu ñëw ne dafa am ko posé question bi ndax talaaqul mukrah yajuuzu aw laa yajuuzu wa talaaqul mukrah laa yajuuzu Souleymane daal di koy woo ñëwee boole ko jàllaa doonee dóor ko dóor ko dóor ko dóor ko dóor ko dóor ko ba mu lot ñu waral ko ci mbaam mu wan gannaaw bopp mbaam bi jaarale ko ci marché bi moo naan ku ma xamoon maa ngi nii ku ma xamul maay Malik ibnu Anas talaaqul bukrahi laa yajuuz
ñoo gëm yàlla dégg nga bañ ko yóbboo Rachid yëg ko ak mu ngi bëgg a ajse bi mu ajsee daal di woo Souleymane woo Malik di ko loola sopp ci Souleymane rek ma def ndax man santuma ko ko moom la góor gi Moussa Kanaan soo xale mi fitna imaam Malik ngir waxi Harouna Rachid al Malik kon nga ne ndax Malik amul kiraama te xam ne day ragal ëllëg maalaam waaye dara saxalul ne Rachid la Souleymane ibn Daawud daal moom la moom moom ah waxul ne ndigalal Harouna Rachid la ko dóore boobu xaroon rasid mooy kii bi mooy xalifa bi mooy xalifa bi.
waaw Rachid mer ci ba ne Malick Muwatta da nga ma bëgg nga jox ma ko ak lépp loo bind ñu imposé ko ci yónnee ko ci réewi lislaam yépp ñëpp jaar ci ñu déterminer yi ci des ñu ko déedéet ndax saaba yi yonante bi sax dañoo tasaaroo ci adduna bi kenn ku nekk ak li nga dégg ci yonante bi fa nga dem nga ko jàngalee du man rek maa dajal li saaba yëpp wax na tàndoone kon nag nañ bàyyi kenn ku nekk te la ko doy ak la mu jot mu def jam ijtihaadam loolu mooy problème al imam malik noonu ñu ko dóoree dóoroon imam abu xanifa kooku moom ci masalatu xalq al quran al qawl bi xalq al quran al quran maxluq lañ ko dóoree woon fanweeri weer ak juróom ñett te dañ koo wékk tànk yi bopp bi féete suuf nga xaar nga xaar suñu te jàllaat bu benn jàllaat a ko doon dóore ñeent mu dóor ko mu jóge muy julli tàkkusaan bu maa ngi tax dara ñu ne ko ñu ko ne da nga baamu ndax ndax sa li ngay julli sa bu ba ngi tax dara mu ne Seydina Omar dañ ko jamee bu muy julli fajar bu muy julli suba lu boobu tax na dara wante di nga xam nga politique dafa jaxasoo nag diine ji Rachid booba ñu ko waroon ci ulamaa yi mu di muxtasile yi muxtasile yi ñoom pour ñoom alquran wax ñetti xalifa ba waaseq moo ko mujj dindi waaye mutawakkil ak muxtasim ak maamuun mais maamuun moom kon na rajulan musaqafan saqafan ale waaye fekk na boobu moom kile yi daal muxtasile yi muxtasile yi la moom nan nag pour ñoom ne daal tawxid pour tawxid sell lu dul yàlla lu ñu bind ulamaaw yi xamoon nañ ne jubul waaye ñenn ñi dañ leen a duma ñu ne alquran wax na ko ñenn ñi dañ leen a tiital ñu ne alquran wax na ko ñenn ñi bi ñu leen woowee rek ñu xam lañ leen di doyee loolu nag moo gënoon a metti mbiru imam ahmad waaw moom moo moo bañoon ñu wax ko mu bañ abu ibnu abi duaat nag nga xam ne moo doon qaadil qubaat moom moo jiite woon mbir mi ali ibnu madini mi nga xam ne moom itam bokk na ci ñeent ñi gën a xam fiq ak xaddis ci jamono jooju mooy ñuy wax azmala ul arbaa moo ko doon dimbali imaam ahmad wax benn xadis xam na ne xadis ba wér na ibnu abi duaat géejewul noonu ci xadis mu laaj Ali ibn Madini ndax am na luñ mën a wokk ci xadis boobu mu lay dara mu ne ko maanaam chaîne de garant bi daal silsila bi daal am na ci koo xam ne sàmm la nitu àll te xam na ne loolu yàqu ci dara waaye pour jox ko lay lu mu koy wax leer na ko ne xadis bi wér na leer na ko ne it ne alquran maxlooq moom ku ko wax wax nga indi nga bidaa bu rëy te sikkale ci tawxiid mu wax ko imaam ahmad ne moo gën a xam ne xadis bi wér na moo ko gën a xam moom waaye nag bàyyi ko na dem mu ci kanam ba ci ba ci kanam yàlla ci loolu la ñu dóor imaam ahmad ba te ñetti xalifa ñëpp passé ba dem waasiq ñëw nag moom moo dimbali ahlu sunna si dal di dàq muxtasile yi jegeetuñ ko dàq yàlla dem mu ni kon wa xawfun ala maalin aw xabsin aw darbin wala sarwaay la gën a feeñ wala saxutay la gën a wér aw xabsu muxsirin wala tëju aji ñàkk koo xam ne amul lu mu faye te bu demee dañ koy julli jee daañu ko téye ndax bor la am boo xam ne àpp bi jotoon na waaye amu ko amul dara wa urñun wala rafle amul lu mu solde ba ba julli ji ay sagar la amee warajaa afwi qawadin warajaa afwi qawadin maanaam jortu jig gëm kii jéggalu fayu maanaam gaañ xawadu mooy da nga jam waa ji ñu war koo nat jam la lu tal li nga ko jamul wala da nga xuuf noppam ñu war a xuuf sa nopp waaw xawal wa katabna alim fi an nafs bi nafs wal ayna bil ayn wal anf bil anf wal udhna bil udhn wasin sin wal jiru xaq saa suñu wax naan la al waa talion talion alquran daf ko saxal léegi waa ji dafa jort ne daal ah moom daal tooñ na te xam na ne bu génnee dem ci jumaa ji daañu ko def te kat bu yéexee rek diw sàngam dana ñëw te bu boobaa daañu ko dimbali wala daañu ko baal bañ a julli juma waa kulu ko sow min ak lekk lu demee ni ki laaj xam nga leen laaj sib nañu boo ko lekkee muy xeeñ nga dugg ci jàkk sax fu ngeen di xamee ne cigarette baaxul ndax laaj ci boppam ndegam sibu kii bi xet gi moo soble muy si moo tax ñi bañ a dugg ci juma ci jàkka rawatina mu ne sigaret sigaret dafa am yeneen i lor mu ni kër yi asfit moom kii ndax kii moom du dafa am ñoo xam ne ñoom it dañ ko tere tere goo xam ne tere araam la moom lan laaj gi nii waaw waaye nag dëgërul li dëgër daal boo ko lekkee daal te ñorul togguñu ko muy xeeñ ci sa gémmiñ moom tere nañ la jàkk yi wala tudd turu yàlla nga xam ne kon boo boo bu dul jamonoy jàkk te dugguloo dugg fasuloo yéene dugg si jàkka tudduloo turu yàlla araamul ndax moom xet gi rek ci bon waaye nekkul muskir bu doon muskir moom lépp a may muy araam moo ni kari naka noonu ngelaw asfatu lu di aj riddi gudee liñ ci guddi léegi daal ngelaw li bari na trop dafa lëndëm boo génnee fa ngay daanu ji doo ko xam lëndëm maanaam day taw lëndëm nga bañ a dem ca jàkka ja mbooloo mi ca jàkka ja waaw waaye laa af sin de li caa génn sayti de aw aman wala ngumba aw shuhude aydin wala fekke ji julli ayit ji wayen asina doonte digaloon na ko ci toogit alimaamu ilimaan ji moo tax it faale wuñu ko leen ajjuma dajeek it waaw doonte ilimaan ji d'accord na itam
man élément yi xam naa nekkul musaar rek ko wax dëgg yàlla dëgg yàlla
am naa loolu loolu laaj.
ko wax am na ñu ne sax jënd bu jumaa war bu fekkee ne ñoom rek ñoo bañ def ko te du jàggee ni benn ngànt daañu xeex ak ñoom ni ñuy xeexee yéefar yi maanaam ni ñuy xeex ak yéefar yi maanaam daañu xeex ak ñoom rek waaye kuñ ci rey daañu la jullee daañu la sank sàng la daañu la yóbbu ca bàmmeeli jullit ñaar daañu la jubale xibla
man kii laay def